Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Les rideaux sont tombés sur la 11e édition du Festival national des arts et des cultures FESNAC et Dakar remporte le Grand Prix d'Outasek du FESNAC doté d'une enveloppe de 3 millions. Entre autres distinctions, voici le palmarès en danse, c'est Ziguinchor qui remporte la première place, suivi de Dakar et de Louga. En théâtre, c'est Ziguinchor qui remporte la première place, suivi de Dakar En musique, c'est Saint-Louis qui remporte la première place suivi de Dakar et de Sixième édition de la journée du livre du lycée français Jean Mermoz, une initiative qui prend de l'ampleur de plus en plus avec plus d'une vingtaine de maisons d'édition et de professionnels du livre qui ont été invités durant toute la journée du samedi à proposer leurs services à travers les publications et autres manuels didactiques, mais aussi de loisirs et de découvertes aux jeunes. Justement, nous avons rencontré aux éditions Falia, éducatrice en préscolaire, illustratrice et productrice de manuels d'enfants sur la base de notre imaginaire culturel africain. Voici l'entretien que nous avons eu avec elle. Alors, le métier d'illustratrice. en moi personnellement, je le fais par passion. Donc, euh, je suis un peu dans le monde des enfants. Euh, je suis euh, dans un préscolaire. Je, je donne des cours. D'abord, je suis entrée là-bas par passion aussi, parce que je faisais des ateliers de dessin avec les enfants. Mm -hmm. Et par la suite, j'ai aimé le, le, contact avec les enfants, le partage et tout ça. Okay. Et donc, euh, c'est parti comme ça. On a fait un livre avec les éditions Falia. Oui. Je veux passer. Je veux passer. Ça parle de quoi euh, Ça parle d'un jeu traditionnel de chez nous oui. qui a tendance à disparaître parce que les enfants sont souvent dans les tablettes. c'est le c'est le c'est le xalaamandiri Badjo. on xalaamandiri Badjo. xalaa xalaa <laughs> on continue. ok euh, comment faire le jeu. Ah, on a souvent des livres de manière technique. qui bi tànk la. bi tànk kan la. bi tànk tànku abi la. abi euh, noo sant. kan. Canena, Canena. <laughs> c'est ça, non C'est ça, oui, voilà. c'est le concept du jeu. Oui. Et en même temps, ça rejoint aussi le monde des enfants au niveau du préscolaire. Mm -hmm. Parce que en perceptivo, on, en, on apprend les enfants la perception. Mm -hmm. On, on t'attache les jeux, on invite l'enfant à, à, reconnaître son ami juste à travers euh, les, les, mains. Et euh, c'est des jeux qu'on doit, pour ma part, euh, sur lesquels on doit insister. C'est pas D'habitude, nous les, nous comme ça, mais... Dans notre, tradition, dans notre tradition, il y a justement donc de, cours qu'on donne à préscolaire, ces genres d'aptitudes, ces genres de pratiques, ces genres de savoirs qu'on inculque aux enfants à travers euh, les préscolaires. ça, oui. à la base, mm -hmm. peut-être pas de manière euh, moderne aujourd'hui, en salle de classe, en mais salle avec, de voilà, classe, c'était plutôt des chants. Ouais, parce qu'ici, dans le livre, on montre un peu la grand-mère qui est là, mmh. les enfants juste autour. Elle les explique un peu le concept du jeu. Mmh. Elle prend juste euh, le foulard mmh. et mhm. elle leur dit à travers ce foulard, on peut jouer. Et la maman transmet. Et comme ça, le, le jeu passe. Sans, euh, ils sont là sous un, sous un arbre, c'était un peu le, le concept du jeu, on peut dire. l'école n'était pas fermée, c'était ouvert à tout et tous les autres enfants étaient euh, invités à, à, participer au jeu. Comme quoi, ça permet aussi aux enfants mm -hmm. sénégalais, africains, de retrouver un peu leur imaginaire. Exactement, exactement ça. Différent des mangas, des... des ouais, c'est ça, voilà. différent des mangas. Pour, pour montrer qu'on mm -hmm. a aussi des logiques ouais. voilà, de transmission. Ouais. Et c'est un peu aussi la logique euh, des, des livres, parce que je, les enfants ont tendance aussi à ne plus lire. Mm -hmm Donc si on arrive à mettre en image et que ça intéresse, à travers là, on peut passer au, au dessin animé, c'est ça, pour une, plus d'ouverture en fait. Radwan Saeli, représentant de l'association des parents d'élèves, revient sur les ambitions et aussi la satisfaction de voir cette organisation être bien appréciée. Il plaide même pour l'organisation de ces journées des livres dans les autres écoles et collèges du Sénégal. Nous nous retrouvons sur, sur un plateau, la cour euh, de notre école, mmh. où nous accueillons une vingtaine de maisons d'édition et de libraires, mmh. une vingtaine d'auteurs, nous, accueillons aussi euh, des associations, mmh. pour en parler tout à l'heure. Nous accueillons également euh, des activités autour du livre, notamment le conte, puisque c'est l'oralité. Euh, nous avons aussi des activités euh, de dessin qui vont avec euh, la bande dessinée et des illustrations. Voilà. Alors le programme est constitué en espaces. Principalement, nous essayons de toucher toute la chaîne du livre, tous les acteurs du livre, de, la, toutes les phases de la conception, pour pouvoir euh, montrer euh, aux élèves avant tout et aux, parents et au grand public comment ça se passe au niveau du livre. Donc nous avons euh, naturellement euh, énormément de maisons d'édition euh, locales et euh, de librairies euh, du Sénégal qui sont invitées, qui sont vraiment les premiers acteurs du livre, puisque je vais dire que ce sont les moteurs de, du livre. Et puis nous avons la matière première. La matière première, euh, ça va être principalement les auteurs, Ça va être aussi être les artistes par le conte, ça va être euh, par les, les dessinateurs, les, les, bandes dessinées. Mhm. Nous introduisons aussi euh, les lettres par le jeu. Mhm. Bon, il y a les jeux de, de chèques pour montrer aux enfants qu'il n'y a pas, euh, euh de, d'avoir de, des loisirs. Mhm. Et nous avons aussi des jeux au niveau de, des mots. Et tout à l'heure, nous aurons à partir de 16h euh, notre club musique qui va nous faire une prestation. Et les mots aussi peuvent être mis en musique. Donc mm. pendant une heure, ils vont prendre des, euh, des artistes et ils vont les mettre en musique avec du piano, avec de la voix. Nous sommes euh, très satisfaits parce que c'est une euh, journée euh, qui prend de plus en plus de l'importance euh, d'année en année. L'objectif, c'est la promotion du livre avant tout. Euh, de montrer d'abord au niveau de l'établissement, c'est parti de là que euh, le livre était important, que c'était un vecteur principal d'éducation et de connaissance. Mmh. Et euh, donc l'objectif est atteint parce que d'année à année, euh, le, le, on est, il y a de plus en plus de fréquentation. Nous avons passé une journée euh, depuis ce matin où pratiquement je n'ai presque pas vu euh, d'enfants et même de parents et d'adultes euh, le nez penché sur un portable. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal leen a gàmm ki seen xibaaru mbatit ndar képp nañu fukkeel bi yoon ak benn ñuy amal festival national des arts et culture di FESNAC 2023 fële ca Kaffrine région bu Ndakaaru nag moo jël prix bu mag bi ñu dippee prix ñu dippee Douta Seck ci FESNAC boobule am lu toll ci enveloppe bu ñetti million lu jël loolu nag palmarès bi ni la tëddee ci wàllum pecc moom Ziguinchor moo jël premier prix bi Ndakaaru topp ci Louga daal di koy feelu ci wàllu théâtre Ziguinchor it moo jël premier prix bi Ndakaaru topp ci Diourbel topp ci niki nit ci wàllu musique ba léegi Saint-Louis di ndar géej moo jël premier prix bi ndakaaru topp ci Louga daal ci topp. wax léegi ci juróom-benneeli édition journée du livre bi ñu amal fële ca lycée français Jean Mermoz bu ndakaaru samedi bi la ñu génn. ci biir foire bi jot nañu daje ki nga xam ne moo di Kudé ji kan doon ku jàngale ci wàllu préscolaire waaye it di nekk illustratrice waaye it di kuy defar ay bande dessinée yoo xam ne dafay sukkandiku ci suñu mbatit ak suñu mboor jot nañu seq benn waxtaan ak ñu bàyyi ngeen déglu ko. noo ku dee jikaan moom dafa mel ni alpulaar la. waaw alpulaar buy dessiné ah. <laughs> alpulaar buy dessiné yaa ngi fii ci euh, donc euh, euh, Jean Mermoz ci journée journée livre bi. waaw ñu bëggoon xam sa liggéey lan la. waaw sama liggéey maa ngi nekk ci benn maison d'édition bu tudd Falia. Mhm. édition enfance. moom day waaw. day defar ay livre pour euh, pour xale mm. livre yi nag souvent suñu kii la ñuy la ñuy wax ci biir livre yi suñu suñu cosaan mm. euh, suñuy histoire dañoo seetlu ne que xale yi souvent dañuy gis ay livre wala di nekk ci télé bi mais duñ leen woon loo xamante ne euh, foofu la seen cosaan fu mu sokkee ko en plus par exemple même bu nekkul suñu cosaan am na ay thème d'actualité yoo xamante ne mi ngi mm-hmm. fii duñ ko wax xale yi souvent. Hmm. mais du ñun ci biir livre yi lañ koy lañ koy waxee. Hmm. comme kii la terrible histoire du pouce boo duggee ci biir livre bi. Hmm. dinañ la wax wax xale bi. nan lay moytoo waaw nan lay moytoo ñenn kii ta euh, saay-saay yi nekk ci ci dëkk bi ak euh, di leen jàngal aussi waruñu topp koo xamante ne xamuñu ko walla. yu mel noonu. am nañ aussi yeneen thèmes waaw parce que dañuy livre yi dafa am en France et en wolof. Mhm. livre bi par exemple dañ fi wax wax li ma gënal. ok ce que je préfère. ñuy wane fruit yoo xamante ne. xale yi léegi gisatuñ ko ci marché bi. ok da nga koy wër ba léegi. ah waaw solom solom sump sump lëng. ñu mm-hmm. xale xamatuñu yi <laughs> tol peut être tol xam ne ko ba léegi tol tol am na fi ba léegi ak ngi ñëw waaw madd am na ngi kii voilà limon new new new xaw na raara ah. new waaw gis nga xale bi xam xamoo new xamul new <laughs> xaal xam nga xaal ak siddéem <laughs> siddéem koko xam nga ko mango livre bi aussi yaa ko bind je veux passer alors euh, nga def aussi illustration yi. Euh, bi sa parle de quoi bi. livre bi je veux passer mooy kii. Euh, xalaa ma ndiri baajo Bajo. ma ndiri Bajo. waaw maa ngi ko liggéey ak Abi Guèye. Uh-huh. artiste plasticienne la. Uh-huh. léegi ci biir livre bi ñu ngi wax waxu je ma ndiri baajo nu muy. nu muy demee. waaw ñu koy joué. Mm-hmm. dañoo seetlu léegi xale yi foogatuñu. foo yu ñu doon def suñu temps maam mm-hmm. xale léegi ñu ngi si tablette yi ñu ngi si internet bi ñu ngi si YouTube bi léegi livre bi da leen di woon que ni ñuy ni ñuy kiwee euh, joué xalaama ndiri baajo te man maa ngi maa ngi liggéey si ma jàngale xale mm-hmm. te seetlu naa ne si biir livre bi mm-hmm. livre bi daf ñuy jàngal ne Euh, perceptivo maanaam xale nu muy nu muy jàngee ba xam euh, xaritam nu mu nu mu mel nu mu bindoo ak yooyu mm. fekk dañuy takk takk bëtam mm. mu ñu koy jàngal mu am seetlu mu bàyyi xel ci ci nit yi ko wër ñi ko wër kon da nga wax ne ni nu ñuy jàngalee yooyu xeetu jàngale ci tubaab yi. Mm-hmm. ak ci école yi. ñun su ñuy cosaan suñuy maam yi. am na ay xeet yu ñu ko defee yu bokkul ak yooyu te dafa doon dox mel ni ay woy bi mel. lool lool moo am sax suñu maam yi ñu ngi doon jàngale suñu xale yi maanaam jàng bi daa melul woon ni salle de classe rek waaye ñoom bu ñu toogoon ak xale yi lal basan nekk ci suufu garab maam daa daanoon na jàngal xale yi jàngal àdduna bàyyi xel ci ñi nekk sa wet bàyyi xel ci laago yi nit ki ak yëpp ba nga mën a màgg ci ci ci société bi nga nekk. Radouane Saye li nga xam ne mooy président parent d'élève bi nga xam ne. ñoo ñoo organiser lu ni mel di xam ne ne lu ni mel lu am solo ndax kat dafay tax téere yi gën di jege askan wi rawatina xale yi niki yi it ñu gën di découvrir di gën di xam la moo nekk téere yi ak ñi koy defar nan lañ koy defaree moo xam ci wàllu téere yi ñuy taalif la moo xam conte yi moo xam it dessinateurs ak illustrateurs yi mi ngi sax ñaax lu jël Jean Mermoz Bile yeneen lycée yi nekk ci Ndakaaru ñu def lu ni mel nañ ko déglu. dañu nekk fii ci lycée Jean Mermoz. Euh, dañu def organisation journée du livre c'est la sixième édition et journée du livre journée du dañ ko def parce que dañu bëgg xale yi ak parents yi ñu euh, ñëw ñu mun a euh, dem ci livre bi découvrir livre bi à travers maison d'édition à travers librairie tamit dañu invité ay auteurs yu bare ay auteurs tubaab ak ay auteurs sénégalais tamit daf nañu am tamit benn auteur sud-africain ci euh, yëpp promotion du livre la tamit euh, euh, dañu am ay conteur dañu def ay conte dañu def am ay ay dessin loolu yëpp dañu bëgg xale yi ñu commencé xam importance livre lecture ak livre bi parce que comme Nelson Mandela dafa waxoon éducation ak livre bi moo gën am importance pour euh, l'avenir pour avenir euh, Afrique ak avenir euh, pays bi loolu tax ci lycée français Jean Mermoz dañu bëgg a def promotion bi ak macha allah euh, tey dañu satis dañu am satisfaction parce que depuis ce matin dañu gis ay xale yu bare ay parents yu bare ay public yu bare danu ñëw ak kenn kenn teyul portable daal mm. kenn teyul portable yëpp dañu dañu def leneen dañu waxtaan dañu ree dañu jàng dañu euh, jouer ak lu nu bugga a loolu des ci sunu école rek danu bugg a euh, école yi yëpp yeneen école yi programme français ak programme sénégalais dañu ñëw euh, sunu école ak danu bugg a ku nekk ci dëkk bi ci Dakar Dakaru ak ci dëkk bi mun na ñëw fii la ñu ndarkeppee seen xibaaru mbatiit jërë ngeen jëf ci déglu bi